na wax rek jëmm yi fi wax wax nañ ko sëriñ xaban bi mu ubbee ubbi na bunt yëpp yàlla na ko yàlla guddal fanam may ko wér sëriñ Mbàkke Abdourahman li mu fi wax lépp ay bind la yoo xam ne ñun ñëpp dañ ko war a jàpp di ko dollandikoo ndax xam xam-xam bi mu waxee ak ni mu waxee ci lépp li mu wax rek lu kenn mëntoon a ñàkk xam la mbaa ku ko xamutit war xam ngi lu la war la li ñu tax a jaar ñu sëriñ bi itam sëñ Gana ñëw na ci wax na ci it moom it lu doy doy ab yóbbal waxal nu ñëpp mën nañ ko yóbbuloo yeneen kilifa yi wax tamit li ñu wax lépp mat na mën nañ ko rafetlu ba ci sëñ Lamine mi nga xam ne moom sëñ Lamine euh, nit la ko xam ne kii ku yàlla booleek moom da ko jàpp ndax aw melokaanam fan yii rek damay déglu xale yi ñuy wax ne daa am sëñ Lamine dafa am benn bis muy dem dindi am ko ko laal ci oto mu taxaw mujj kilifa yi ku ñëw taxaw ba mu mujj yëfee doon circulation boo xam ne kenn xamul fu mu yem loolu nag ak mbaaxam la kon dañ koy ñaanal yàlla saxal ko ci dolli ko wér àggale yéenam yëpp jaxasoo bi doy na ci rek ci li mu waxee ci soxna Mame Bousso mi nga xam ne ñoo bokk soxna Maguette Dieng jaxasoo gunu jaxasoo ak yàgg ca barab ba taxoon na ñu bari jàppoon ne soxna Maguette Dieng mooy suñu waajuru jigéen ba nit sax mas naa ñëw ci yaa umi sekk mais di ko laaj naan ko suñu tàkkoo ndax yaayam gëj na yaay mu ne ko soxna Maguette mu ne ko ah waaye soxna Maguette dañuy benn maag moom moo tax kon loolu doy na ci ñu leele ko ci jaxasoo gi sëriñ ab sa nag wax ci moom liñ ci wax doy na man lenn rek laa ciy fàttali loo xam ne maa ngi ko doon wax sëriñ Cheikh Jorel sànq nii nga xam ne sëriñ seex Joro mi nga xam ne moo jaboote nun ñëpp bu ñu jaboone lu ne nun moo ko ci def moom moo ko daan moo ko daan waxtaane Baye seex Joro doon koo xam ne ab xolam lépp dafa dafa jeex sëriñ Touba waaye ak bëggam lépp da koo defal ci sëriñ Fallou ba mu jeex takk Serigne Cheikh Absa mi nga xam ne mooy waa waajuram mat sëkk ñu xam ne li ñu wax ci moom nga xam ne mooy lépp lépp mooy lépp sëñ bi sëñ bi léppam fuñ fuñ ko wat goo ko xoolee mu mat sëkk sëriñ bi lenn rek la Baye Cheikh Thioro daan nettali ci moom muy li ñu doon wax sànq ci tab gi Baye Cheikh Thioro na Serigne Fall da koo wax ne ko fekk ñu toog yi waxtaan ñu ne diw dafa tabe di kilifa yu bari mu ne mu ne leen Cheikh mu ne ko Mbàkke mu ne ko bu ñu doon joxee joxe cërub tab Serigne Cheikh Absa la koy lañ koy jox kon xam nga kon tab gi liñ ci wax mat na sëkk bàyyi seex te loolu rek laa daan dégg muy nettali ci kenn lu dul sëñ Fallu lu masaan nettali sëñ palu nee na sama sëñ ba ne waaye loolu képp laa mas a dégg man sëñ Sàllu ko ne nangam ci bàyyam amul leen lu mu ci daan wax kon yàlla na ko yàlla fayal ak leen ko yéeneem nu nekkoon fi moom doon jëmm joo xam ne lépp loo xam ne li waaye bëgg na ko ci mbaax boo nee ci ronam te sàkk ko ci moom man ko ca am nu de am na nañu ci moom ndimbal yu bare bari ndax man damay toog di wax fu ma toogee jotaay bu di wax bala maa noppi faw sama xel dana dem ci loo xam ne lii lu mu ma waxoon la loo xam ne bu ma ko wax jataay ba ñëpp ne kii waxam ji rafet na te booba sax daa mel ne sax bàyyiwuma koon xel ne man lii war naa ko mën a jàpp waaye xëy na kon moom pëstéefam ak pàggoom moo ko lawal ci noonu lawal ko ci mboolem nga xam ne ñoo fa nekkoon ku mel ne sëñ Cheikh Joor ak muy jëmm ju baax joo xam ne ji ak ba ak baaxam yeesul fenn yàlla na ko yàlla àggale yéeneem di sant sëñ Cheikh Joorel mi nga xam ne moom moo nu indi ci kër ga moom lañ loxoom lañ jaare ñëw ci kër ga muy sunu mag def na ne boppam nu ànd ba léegi moo yeboon moom mi moo ma njëkk a tuddee doom bu fekkoonte ne tey nekkoon na fi tey yoone yi di bokk yokk circulation bi organisation bi ci lay bokk yàlla na yàlla àggali yéen ji defal nu ko sëñ Fallou mi rakkam li nga xam ne mooy sama xarit moom moo yeboon ne bu ma xarit boo xam ne man na maa wax ne fii bëri sàngoo suuf moom laay tuddee xarit mooy sëñ fallu mi di rakkam waaw ndax lu lu nu jël lu nu seq lu bëree bëri dem nan na ba njaboot sax gàllankoor na ba waxtu wéy duñu mën di gisante waaye mooy tuddub xarit dëgg-dëgg boo xam ne dañuy ñaan ëllëg suñu borom laaj ñu kóllëre ga ci moom mii laa koy teg ci loxoom loolu mooy liberté noonu noo ngi sant bu baax di gërëm ah, Seex Absa nag moo moom bis bi waaye ci ak ak ak ak ak baaxam ak bennoo ko ak njabootam bennoo man dama daan ànd lu bari ak Baye Seex Coro di dem sëriñ Seex Gaawaan nekk ca këram di ko gane ji bàyyi sëñ Mbàkke nekk fa di seen kilifa ñoom ñëpp sëñ Cheikh Gaawaan këram googee saa bu nu masaan dem ba àgg fa bàyyi Cheikh Gaawaan moom noppi naa yorub dogal ci kër ga ba bàyyi Cheikh di coro di génn kër ga ci loo xam ne sama kanam la bu masaan ñëw waa kër gépp kenn ku ci ma doon am yoon woo xam ne yaa ngi koy jaar wu xam ne wu xaw a dëng la sax da nga naan cocc ba bàyyi Cheikh coro dem nga door nga door jaar ci la nga nekkoon waaye bu ñu masaan dugg ci kër ga bàyyi du def lenn loo xam ne lii bàyyi Cheikh coro koy dogal ba bàyyi ñu jigéen kër ga kooku nag xam nga ne bu nit benn bàyyi di magam doyloo ko ci mbiram ba bu ñëwee sa kër nga bàyyi kook sa dogalub kër foofu la ak doolo mën a yem foofu la ak bëgg mën a yem foofu la go bokk gu rafet mën a yem te loolu gis naa ne raw law na ci mbooleem njabootu suñu Seex Absa gi fu ma fi masaan a ànd ak moom danañ jox bàyyi Seex cër boo xam ne du yees fenn loolu nag ak defaru mënu koo raw ndax bokk ak nit yilif ko jël sa bopp jox ko mu di la ah, mu di la mu di la mu di sa kër wala mu di la jubantil loolu nañ ko sant yàlla bu baax di ko ñaanale bàyyi waaye ñoom it nak dañoo mat lañ doon sëkk ndax ku nangu dogalub suñu borom dafa nga lu baax kon sëriñ mambal no nga lay sant bu baax ci taway bi no nga lay nuyo ak ziaré ci sëriñ Basiru ak mbollem njabootu sëriñ Cheikh absegi gi di leen ñaanal magal gi yalla nañ ko yàgg def yalla nañu ci yalla del dimbalé ba lepp lo xamni luñ fi luñ fi def la yalla nangu ko te bàkk yàlla nu ko ci barkeb sëriñ Touba man sama dama sama xol dafa sedd ba mënuma wax sax limu bëgg wax xamna ni ne Cheikh suñu mag ji baax ji moy bëgg wax kon li ñu waroon wax lépp dana ko wax muy lu mat sëkk yàlla ko teewaat at yu bari te bu ñëwee dàqal nu noo ngi ñaanal Serigne Mountakha yàlla dolli ko fa yàggal àggale ko yéeneem yëpp ak mboolem njabootu borom Tuubaa gi waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu.